fi mu fi mu taxawee ak ak ak Amadou Ba ak li mu jot ak ak ak li ci jot am yëpp yow ba njàngal nga ci def. mais euh, président fan ngeen bëggoon mu taxaw feneen quand tu choisis un candidat tu assumes. absolument. y a rien d'extraordinaire finalement je me pose la question de savoir est-ce que da ngeen bëgg politiciens yi nekk nit wala ñu nekk ay damitu yàlla. vous vous ôtez aux politiciens jusqu'à la raison d'être des êtres humains d'avoir des ressentiments d'avoir des besoins d'avoir de la haine même mm-hmm. et vous le justifiez par ailleurs pour d'autres mmh. en vous taisant sur tout ce qu'ils peuvent faire Macky Sall choisit dans un magma de Benno Bokk Yaakaar quelqu'un pour dire kii mooy sama candidat vous avez bien dit Magma j'ai dit dans un Magma parce que c'est plusieurs formations politiques qui sont là mhm. je parle pas de ce que vous voulez devenir comme Magma <laughs> c'est plusieurs formations avec avec euh, une situation dans laquelle mhm. des gens se sont détachés pour dire je veux mhm. mais il a un choix à faire et il avait annoncé les couleurs nii laa koy defee naa il a fini par choisir quelqu'un Mhm. et vous voulez qu'il choisisse quelqu'un puisqu'il est président mu bàyyi ko du wax dara de suite c'est à lui de se donner les limites de ce qu'il peut faire dans cette direction mhm. ce qu'il ne peut pas faire dans cette direction vous dans votre rôle critiquez faites ce que vous voulez mhm. dites que c'est pas bon mais admettez que un choix c'est un choix on l'assume Mm-hmm. et le bonhomme il a fait un choix il est en train de l'assumer. mais mais mais mais ci commencé ci dox ci doxalin suñu ci Amadou Ba moom njëkkoon naa dem Tivaouane pendant ce temps moom mi nga xam ne moo ngi def caravane di dem Tivaouane gis nañ am ay hommes politiques yoo xam ne ci ci opposition lañ bokk ñoom ñoo ngi leen di baare ak leen di gazé. mais yow xanaa da contre. contre kan.

wala ay ñoo xam ne ay observateur lañ ñoo ngi ci mbedd bi xëy na ñoom amuñu tey position bi nga xam ne ñoom am nañ ko pour wax mais ñoom suñu joxee yóbbante foog ñu ñëw te suñu day ñu mel ni yéen ñu laaj leen ko ci li nga xam ne noonu noonu la police ak gendarmerie du doxee tey des préfets ñu leen di jox ay ay ay ay ndigal pour ñu arrêter tel et tel pendant ce temps gis nañ ñoo xam ne ñoo ngi ci nguur di di di def la même chose non yow loolu nga gis parce que gis nga image bi déroulé nii sa kanam mhm. yow ni nga ma koy delloo yow li nga gis moom ngay décrire mais waa me toucher sa ma sama bopp mu ngi fële ci télé bi. <laughs> demal nga laal ma tu ne me trouveras pas. et pourtant su ñu la nee kii kan la da nga naan commissaire nga dee de télévision. Hmm. et tu n'auras pas tort. Hmm. c'est comme ça que toutes les choses dans notre vie là sont rapportées. <laughs> ci surface bi nga xam ni moom mooy feeñ. <laughs> mais on n'est pas la substance de toutes les choses. d'accord yow da nga wax ni préfet police est-ce il faut hmm. ngeen jógee. façon de présenter les choses là il y a des événements dans l'espace mhm. Malick Gakou par exemple neena moom moo wax ni on est en train de barrer mon cortège on est en train de ça c'est li ngeen di gis yéen ba noppi nag indi ko teg ko ci digg bi comme vérité absolue mais qu'est-ce qu'il y a derrière tout cela gis nañ interdiction gis nañ interdiction di di gis nañ interdiction bi préfet def mais après mais c'est le préfet ce n'est pas le président de la république si vous me le posez comme ça pour ma wax ni tu raison mais je vous donnerai pas raison parce que comme je vous l'ai dit vous refusez au préfet de s'exprimer en tant que préfet et vous le calez quelque part pour qu'il ne soit pas préfet vous en faites quelqu'un à la limite qui travaille pour quelqu'un d'autre mhm. président ministre bi ainsi de suite et vous réglez le problème terminé mais laissez le préfet être préfet mhm. vous ici vous êtes habitué à une da ngeen jël décision bi vous mettez ça à la sauce de politique. Mhm. vous réglez tout ça vous réglez et vous ramenez ça au peuple vous dites peuple bi voilà lii moo fi nekk. mais c'est anormal. Mhm. les les autorités administratives. Mhm. ci benn appareil la ñu nekk. mun su dul woon loolu du ñu dund. il faut ngeen dellu si li leen di réeral ak ñiy réeral Sénégal yi mu ngi ci approche bi ñu am ci liy déroulé wu suñu kanam. da ngeen di gis ay nit yu taxaw fii vous les voyez dans des dans des comportements tendancieux qui prédisent. des comportements belliqueux et violents qui réclament des droits au départ ñun suñu affaire bi suñu mayul on va tout casser dès quelqu'un dit par force qu'on nous autorise ou qu'on ne nous autorise pas moi je suis pressé mhm. ma gis naa ta tendance que tu veux défier l'autorité waxuma nga wax de ci mhm. sa posture rek mhm. la défense de l'autorité m'exige d'accord de te serrer de près nga déposer dix autorisations du ma ci nangu et je t'oppose la force de la République. yéen dimension boobu a pas d'abus de pouvoir. non chacun de vous est capable de le faire. la différence c'est que vous n'êtes pas dans la responsabilité. et les autres sont dans la responsabilité. moi la différence entre vous et moi. c'est que je reste. au moins je n'ai pas les mêmes sentiments que vous. j'essaie de comprendre le préfet. xëy na vous avez raison. mais moi j'essaie de le comprendre. c'est tout j'essaie de le comprendre. mais mais mais maintenant le problème réel dans le maintien de l'ordre c'est c'est quoi lan lan lan lan moo war à chaque fois ñuy wax ne pro loolu loolu loolu day loolu day daal di am. il y a aucun problème on fait du maintien de l'ordre on prend des décisions dans une situation extrêmement glissante qui vous pose à dire est-ce que nous sommes en sécurité. donc fi ngeen di nekk di apprécier les vous voulez tout à la fois. même ci manifestation mais manifestation les manifestations sont des sources de li ñu gis xosantoo manifestation manifestation mën naa ne boo xamante ne dafa dañ ko programmer vite fait vite fait deux mois quand euh, commissaire.

lii ngay tëb nii daal il y a eu deux morts ya mais c'est entre nous ils n'ont pas voulu ces morts là c'est pas des assassins c'est des gens qui sont allés faire leur travail qu'est-ce qui s'est passé moo tax man la quand vous décrivez une situation allez au-delà mm-hmm. de l'image que vous voyez respectez les gens cas bi ma ciy jël tout le temps mooy j'ai vu des gens s'acharner sur les gendarmes qui avaient tiré à l'université de Saint-Louis il y a eu un mort ils étaient une petite poignée de gendarmes qui allaient être bouffés par des étudiants. Le responsable de la troupe, pour sauver sa troupe, a été obligé d'utiliser son arme. Il y a eu un mort. Si on avait marché sur toutes ces personnes-là, mais vous n'auriez rien dit. Ça nous est arrivé, nous, ici, à, comment dire, ici à Dakar, avec les moustachidines. On est mort 14 et on n'en parle pas. Petit événement où, à chaque fois qu'on parle des morts de 2021 à maintenant on ne parle pas des gendarmes seen loxo dagg alkaati yi dee instru on n'en parle pas c'est comme si c'est du rien du tout mmh. dites-vous que c'est des gens de métier moi qui vous parle je suis un policier de métier lii may def je respecte plus mon métier de policier que toutes les autres choses parce que xam naa lu muy jëriñ ci biir askan wi et aucun d'entre nous n'est animé de velléité criminelle buy dem sur le terrain lu am ci maintien de rek ak intervention policier c'est un c'est un incident de parcours mmh. j'ai vu j'ai défendu des policiers sur un autre champ un agent de police qui va à la circulation benn waay ñëw foncé ci kawam refus d'obtempérer il se retourne il prend son arme il veut tirer sur le pneu il le prend ici au cou on dit déjà war woon tirer te waa ji xawoon naka rey il a le devoir de l'arrêter l'arme c'est fait pour ça mm-hmm. bi mu jógee këram bëgguloon rey nit c'est comme ça qu'il faut approcher les choses bu ngeen en Occident aujourd'hui en France mhm. donc dañu les gens sont été obligés de produire des outils de communication pour sensibiliser les gens sur la personnalité de ces gens-là aucun policier n'est différent de vous et aucun policier ne s'est jamais euh, ne pour aller tuer quelqu'un mhm. ça vous laisse une marge pour que lu xew rek mhm. la lu am la ngeen bàyyi ñiy def seen liggéey ñi def seen liggéey maintenant entre une bavure et une autre il y en mhm. a. une bavure qui est normale et une sale bavure dans nos rangs nous. Mhm. tous ceux qui commettent des sales bavures le payent. il y a toujours une enquête à la suite de tout ce qui se passe dans les forces de défense et de sécurité. mais c'est pas public. c'est pas. c'est pourquoi ñu leen koy publier. on est dans un autre univers. Mhm. pourquoi ñu leen di jox conséquences yi on est dans un que ñu leen di dooleel. parce que pour ñu leen di yóbbu le terrain ici il faut les pomper à bloc. parce que dafa metti liggéey boobu ce n'est pas un travail très facile que d'aller toujours au front de risquer d'être blessé ou de blesser quelqu'un donc il faut nga téye leen ñu xam ne ñoom tamit ils ont la confiance du Sénégal, du peuple, leur employeur. C'est un peu cette logique qu'il faut mettre au devant. Je ne sais pas si <laughs> <laughs> moom on va laisser à l'appréciation dañuy xam ne ñoo ngi seetaan ak sunu ak sunu chroniqueur sànq tamit suñu ñëwee euh, moom daanaka sax jóge nañ ci kaw Amadou Ba wàccaat quand même ci euh, mm. maintien lépp dafa bokk ci ni nga xamante ne tey noonu la politique beeg ak euh, sécurité bi di di di salfaañoo mm. moom maa ngi jël ndoog jël kaaw ni nga xamante noonu la ñu ga gazé Malick Gakou ci waxtu bi nga xamante ne Amadou Ba moo ngi dem euh, moo ngi dem euh, ci fi nga xam ne moo di teewoon loolu wax nañ ko fii keroog je pense mooy peut-être kumba am ndey kumba amul ndey bi nga mhm. xam ne euh, parfois boo xoolee yenn situation yi da nga ko ciy gis peut-être ñeneen dañuy mun a def seen caravane à côté mhm. ñuy tere ñenn opposant mais man je veux surtout m'appesantir parce que waxtu bi foog naa ne jeex na technique bi ñoo ngi ñuy ñoo ngi ñuy le maintien de l'ordre tey je pense que équation la bu compliqué ci Sénégal mhm. ndax seetlu nañ nañu manifestation yi certes dafay violente mm -hmm. mais maintien de l'ordre bi parfois on a l'impression qu'il y a des excès qu'il y a benn excès de violence ci mhm. bavure yi euh, nit ñi di dee en détention saa yu ñu defee manifestation sa signifie qu'il y des morts on tire à balles réelles selon euh, li nga xam ne moom la ñu fasal comme information il y a pas d'enquête derrière même si du lépp la ñu mën a wax mhm. mais au moins s'il y des enquêtes que nous soyons édifiés parce que le peuple a besoin d'être édifié le peuple mhm. a besoin quand même xam lan moo xew ñu xam ci ban tànk la ñuy taxawee donc sur les bavures policières aussi moi j'estime qu'il vraiment des zones d'ombre yoo xam ne dañ ko war a éclaircir mhm. ci aussi façon bi ñuy defee maintien de l'ordre ça commence à inquiéter tey ñu bëree bëri wax nañ ko fi keroog manifestation bu amee sax da ngay ragal a mm, génn parce que doo xam fan la bal di jóge et population bi aussi dafay ñëwaat ci bu loolu passé ñu ne ñu c'est des forces occultes c'est des nervis te ba léegi depuis ba 2023 ñu mhm. wax loolu fan la jóge mhm. donc il y a vraiment problème boo xam ne war nañu ko war nañu que man maa doon <laughs> comme wax gars yi léegi sax dañuy dañuy. kii rek ah dañuy euh, bon naqarlu aussi bon comme ni ko commissaire waxee y a des euh, y a des incidents yoo xamante ni day am. Mhm. mais quand euh, li am mbaam am mooy il faut que que la police ou bien les force de maintien de l'ordre parviennent à déconstruire une l'idée selon laquelle ñoom ak ñun faruñu. il faut que idée boobu dañ. loolu loolu gis. ñu mag ñoom faruñu maanaam bokkuñu. comme li nga wax sànq ñu xam ne ni ñun ñoom si ñun la ñu jógee. Mhm. ñun ak ñoom ñoo bokk. et ñoom ils sont là pour défendre pour défendre nu mu tudd euh, suñuy liberté. ginnaaw loolu tamit à chaque fois bu amee problème aussi. ñu mën a situer les responsabilités. responsable xam nga même su dara. Mhm. loolu day defal day defal famille victime. Mhm. mais ñu ñu rey euh, euh, un manifestant ñu passé ko sous. pertes et profits ba nga xamante ni. ñenn ñi sax doon naan dommage collatéral doo xam mhm. lan moo xew. yaa les familles ont euh, le droit de savoir bu dee nit ki dafa rey peut-être c'est une bavure boo xamante ni xamal na ko commissaire wooye bavure normale. Mhm. ñoom ne si ñu xam. Mhm. bu dee aussi y a une sale bavure en en solo la le langage euh, du policier ñu xam ne sale bavure la. ñu situé responsable ne seen doom kat. nii si condition yi la la la faatoo. Mhm. au moins au moins ñu xamante ni justice a a été rendue. mais ñu bàyyi la noonu tamit ba du ñu xam tamit euh, nit ki nan la ñàkkee bakkanam tamit. Mhm. quand même tu as tu vis avec ce sentiment d'injustice. ne mhm. sama doom bi kat euh, place de l'Obélisque la demoon wala bërëb sangam la demoon il est tombé euh, sur le champ dee na. kenn xamul la moo ko rey donc yooyu noonu ay affaire yu ñu naqarlu la. d' accord d' accord merci merci Cheikh ah je pense que on a on a fait quand même le tour des questions bëggoon nañ gën a gën a gën a xóotal. mais mais waxtu chaque fois chaque fois dañuy def donc euh, commissaire euh, Cheikh na Cheikh Sadibou Keita tey moom la ñu doon dalal ci seen émission 2024 euh, plus maa ngi doon dem ba grand angle xam nga nag grand angle dama ko bëgg tellement que su may wax sax <laughs> mënu ma cee mënu ma cee taxaw commissaire vraiment ñu tàggatoo. Ben, merci beaucoup. Ça aura été un très grand plaisir parce que ça fait très longtemps que Dieu nous montre. Mm -hmm. Comme je vous l'ai dit, c'est pour faire plaisir à mon ami que je suis sorti aujourd'hui. Mm -hmm. Mais je ne l'ai pas regretté. Merci. Bon, Tago, moi, je vous appelle toujours à comprendre que devant encore, il y aura beaucoup d'événements. Le pays vous attend à des niveaux de responsabilité qui obligent chacun d'entre nous à faire preuve. Mm -hmm de distance par rapport aux faits il faut que tey ñu seet lu nekk nan lañ koy présenter te bàyyi sunu mhm. sentiment partisan que ce soit du côté du pouvoir ou que ce soit de l'autre côté mhm. quand la sécurité d'un pays est en danger il faut que ñu def de la lucidité mhm. il faut que itamit dans les approches ñu respecter toujours une démarche cohérente qui part des causes vers les conséquences. Mmh. Ici au Sénégal, il y a tellement de discours qui se perdent dans l'air parce que les gens oublient toujours les causes, ils parlent des conséquences et des conséquences des conséquences. Mhm. Donc j'en appelle à la diligence de tout le monde. Mhm. La bataille va être charmante, rien n'est perdu, il faut être optimiste. réew mi fi mu jëm dafa nekk. Mhm. donc il faut être optimiste. quel que soit ce qui va arriver demain yal na nu yàlla jàppale. amiin amiin euh, Fatou ñuy tàggatoo. xam naa ba sem ba semaine ba semaine prochaine. parce que ba semaine nag ah. may forcé waat. ah man ah man de moom xam naa ne jeudi moom su ma soxla ñu liggéey. Eh, waaw d'accord waaye Cheikh mi ngi may xoolee moom dafa mel ne ku bëgg a dem Kaolack dem gàmmu ji. Eh. wala Podor lay gàmmu woo ren. <laughs> jërëjëf en tout cas Jérôme. c'est mm. toujours un plaisir di euh,